aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moo fi Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf xafidahu llahu taala wa raahu wa ayadahu wa zaada min nasrihi di ñaan mu yàgg fi te ànd ak ba mboolem naan yi nga xam ni am na ko ci lislaam suñu borom may ko kàttan ak lépp mu àggale ko mu kaw def lépp ndigale ma yéenee ma taxawaay ma kon doonu ji dara lu weesu rek defal nga def yemal fii nga yem fii kon cant gépp dañ koy delloo ci moom ndax liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu bu mag bii nga xam ne mi ngi ko doon def ci turu mboolem comité organisation bi yëpp nag ak mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp dañuy yëkkatiwaatu cant ak ngërëm di ko jëmale ci moom ndax Serigne Touba kat bokk na ci lim fàggul taalibe yi ci liggéey bi mu doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci ku toggee ab jotaay la da ko mën a sëkk kon nag moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg ci loolu te ànd ak ñoom. ndax mboolem li ñuy séentu ci moom rek weesu na ci faru diggam ak boroom li ëpp solo mooy foo ko séen rek mu delloo ci yàlla te loolu mooy li jiitu ci li ñu doy kilifa mu jën yiite àdduna dëdduna lépp dama ko waxoon keroog dëgmal boromam dëgmal Serigne Touba lu du liggéeyee Serigne Touba bi du itteem lu jaamu yàlla du iteem kon dañuy ñaan mu yàgg fi tànn biir ndax taxawaayam mate na ko sëkk liggéey bi itam di liggéeyu màgg bi yàlla def na ba mu duggee ci suñu loxo ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu jëloon ko def ko jëwriñ ji keroog ba ñu taxawal comité organisation bi yàlla def na moo ñëwaloon boppam waxoon ci kàddu yu rëy ya mu ci waxoon kenn du ko fàtte muy la mu waxoon ne bu moo ko mënoon sax damay topp seen ginnaaw di di di leen liggéeyal kon sëriñ bi liggéey bi fu mu àgg rek cant gi dañ koy tàmbalee ci moom ndax ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké joxe ndigal da ko ànd ñun taxawuñu ci ba bari na ci ñoo xam ne sax moo leen tàbbal ci liggéey bi benn ci Serigne Cheikh danaa koy fàttali waxtu ne ak ñu baree bari ñoo xam ne ci kilifa yoon yi rawatina ci waa majlisu suuraa bi moo leen jox ndigal ne leen ànd leen moom te jàppale kon moom muus cee génne loxo ba mu nekkee ci loxo itam lépp dañu ko bàyyi. bi fi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke nekkee itam seen diggante ñëpp xawoon nañ ko mu jël lépp teg ko ci loxoom waaye mu jëlaat lépp bàyyiwaat ma ko teg ko ci sama loxo ci doy na bi mu doonee Serigne itam fu ko fekkoon rek da koo yokk gën koo sàmm waxtu bu nekk loolu la may fet bi li ma bëgg de mooy dëgëral ak sàmm la te lool ñu ngi koy dox suñu digg moom kon dañ koy sant di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne li muy jëf lépp moo tax yàlla fay. di gërëm nag mboolem ñuy saqaloon liggéey bi yëpp tàmbalee ci waa mujj suura bi ba agsi ci waa comité organisation bi ci njiitalu Serigne Ousmane euh, tudd ñi ngi sant comi commission yëpp bàyyiwuñ kenn kenn ku ci ne la la war ci liggéey bi def nga ko ci rafetal waxoon naa kon jëru del si waat euh, waxtaan yi yéen itam lépp ni ko sëñ Saam leeral léegi lépp ay wax la rafet li Serigne wax li Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo yor communication wax li nga xam ne euh, Serigne Abdoul Ahad Ka ni jiite commune Touba wax na ko ak li nga xam ne professeur li mu dee ak ñoom àndal wax nañ ko yëpp ak ba Serigne Moussa Moussa ñu yor wàllu ndox mi kenn ku ci ne la mu wax wax ja leer na kon jëru del si wat kon jataay bi li ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisub cant te sant kat dara gënu ko màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee ay bi ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñu borom wax na ko fu baree bare bare cant nag la ci jiitu mooy cantu cantu xol mooy wa maa bikum min ni'matin fa minallah ak cantu làmmiñ mooy la in shakartum na ko ba ca des mooy cantu jëf i'malu ala daawuda shukran waaye nag dégg ngeen daje suñu borom teg wax qalilun min ibadiya shakur kon sant lu jëfe na seytaane bi nga xamee ne suñu borom dàkku na ko ba génne ko bokk na ca lam sartante moom summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim ak tajidu aktharahum sakirin loolu nag moo tax alxuraan boo ko demee walakin akthar annaasi lu bari bari na ca walakin aktharuhum la yashkurun kon sant yàlla lu jafe la boo demee ci alxuraan itam dana fa bari lool foo xam ne da ngay dégg suñu borom di ci wax ne qul man yunajjikum min zulumaati albarri walbahri tad'uunahu tadarruhan wa xufyatan mooy li taalib yi def la inaan naa min haasihi lanakunanna min ash-shaakirin mu ne xulillaahi yunjiikum minhaa wa min kulli kabin summa antum tushrikuun kon day mel ne sant ji ba mu rek shirka day dugg Sëriñ Tuubaa nag ci biir fàggu gi ñu fàggu nga xam ne lépp da ko fàgguwaale moo tax ba muy nekk ca tukkeem bu tedd ba ci wala xad karam naa dégg nga mu wax ne yashirru juuxi li tuubaa waxmini waqini azal wara waltutib li zamma iskaana azal wara ji mbas mi tàbbi na ci biir waaye lam ci tegaat laka chama wal aradi wal hawa ubira kon nga xam ne daanaka boo santu rek dugg nga ci sirke waaye lépp suñ suñ tubaab fàgguwaale nañ ko ndax suñ borom dafa wax ne bàkkaar bu mu mën a doon rek danaa ko jéggal ba mu des bokkaale moo tax Sëriñ Tuubaa bokk na ci lim gën a tàggat ci taalibe yi mooy tawhid moo tax xasaa itam ci tawhid la ko nag dañuy sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuubaa euh, Cheikh Mahoudou Mountakha itam wane na sëkk ne mat nam Sëriñ Tuubaa ndax ku fi nekkal Serigne kat fàttali naa ko ba tey du samay wax waxi Cheikh Abdoul Ahad da ko wax ju gudd na dafa wax ne Serigne ci biir bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da cee fagguwaale xutbaani yëgi du génnati ak njabootam mu ne nag sëriñtuwaa nag ba mu xamee ne amul ñaar amul ñett tamit te lim yor di leen te mënu ko jox kii bàyyi kii. dafa jël lépp dajale ko ci waxande mu jël waxande wa nag lépp lu mu am mu def ko ci biir jël ceeb ji teg ko ci loxo ki mag njaboot gépp kenn mënta àgg ci waxande te jaaroo ci ki mag waaye moom itam sañut kenn ñëw laaj ko mu joxula ci ndax seen àll li bàyyi di ci biir mu ne jataay boobu nag balaa caa kenn toog danañ la peese ak bindeef yi ba nga waddee ñu door dafa teg buñ ñu la peese ak bindeef yi te watoo leen nag ñu dooleel la ba nga mat ko ñu door la fa teg mu ne boobaa nag lépp loo xam ne euh, balaa la buy wàcc balaa wàcc kaw suuf danga ci yanu ba diis ba doy ba doyal sëkk wàcc ci naka noonu itam lépp loo xam ne aw yiw la balaa wàcc ci kaw suuf dana agsi ci kaw nga jël ci ba fees mu door wàcc ci nit ñi loola nag lii fii jataay bi toll Cheikh Mouhamadou taxaar wane na ko ci lu bare bari ndax ñoom dañuy gis lu ak siwut te loolu la ñuy doyee kilifa kilifa donc day day xam loo xamut moo tax dañuy wax ne boo nekkee ci sa kanamu sëyin da war a mën ne kal mayiti bay na yeneen xaasili yi mooy danga nga ko topp nit ki nga xam ne am ne ko koy sàng fu mu ko jëmale bu jëm fa moo tax it wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma xatahu wa ma huwa salabu l ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari ndax loolu damay fàttali moom bi yi wàcc ci àdduna wàcce mboolem li nga xam ne suñ borom da ko santaane ndax inna makkanna lahu fil ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan kon loolu suñ borom ko digle ci alxuraan mboolem luy sabab ya daa santaane na ko ñëpp def ngir wane ci aw yoon te digliwu koy bàyyi waaye da caa jiitu lam ci war a def mu def ko ca waaye itam li nga xam ne mooy ndigalu suñ borom nag da ko jiital loolu itam suñu borom far na ko ci ba ci màggal gii itam ba mu santaane ne ne ñëpp xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne nag la ci Cheikh Ibra Faty ci kër gi la ko waxee ci Daaru Manaan gii Serigne Touba du ma sant lu ma def te santaane mukk lu dul am loolu nag taalib yëpp jëfe mooy wane ne Serigne Touba du santaane mukk lu dul am te du ma sant mukk lu ma dul def foofu la taalibe Serigne yëpp nekkoon roy ci seen jëf ji kon. loolu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xamee ni li xew lépp lu mu ci mas di def ñii lif àdduna si na mu ko waxalee boppam di cee dégg moom yàlla def na man seere laa ci ba ma yónnee ci ki jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéen jëm ci am ak li mu ci bëgg lan ma wax mooy te naa ko ci télé bi ñëpp dégg ko yaakaar naa ko arrière bandi da nga ko ci fekk ñee ko li ma ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rekk ci am kon nag yey na ñëpp kon nag wanee na ne lam doon wax ci yaqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju solo ci biir ba ki démb rek waxaat ma ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax ne Tuubaa de dañoo sedd ne jàngoro ji jeex na fa wàññi na mooy loolu nekku ci suñ ginnaaw suñ kanam la ne Sëñ Tuubaa noppi na ci lañ ko bàyyi ci loxo bi waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñu fooyee du lu ñuy bàkkoo itam kon lu ñuy sant Sëriñ Tuubaa waaye du lu ñu bàkkoo kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak wéet lu bëree bëri nee na mbirum baatin du lu ñuy fooye du lu ñuy caaxaan mbirum Sëriñ Tuubaa lañ ko bàyyi moom waaye nag du lu ñu bàkkoo kon ñun li ñu war bàkkuñ dañuy sant te euh, Sëriñ Tuubaa dafa alxuraan dafa wax ni wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis moo sëriñ bi lépp lu ngeen dégg mu wax ko ci ak may digg ma borom la ko teg qultu wa xasdi taxaddusum bi ma lii qaadahu wala yurini niqama kon ñoom dañuy xam lu ak siwut waaye lii ko sëriñ Touba sagale ci kënamu àdduna wane na ne sëriñ Touba tey la fi gën a ne sëriñ am sori jaxal daana wax nee na kuy nattab ne sëriñ Touba nekkatu fi kon boobu amul dara ci basirut waaye Cheikh Mouhamadou taxaay yaqin ji mu amoon ne jàmm rek a xew wane na ko ndax ñii nga xam ñooy wàllu adduna gi wane nañ wax nañ ne màggat gisuñ benn jeexit bu am jàngur yi kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne te bañ koo bàkkoo Cheikh Mouhamadou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne ko may Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa yi nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla doo koy gën yokk kon nag ñun nag li ñuy Serigne tubaa defal ci biir adduna laay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu adduna sépp la ne te Serigne tubaa xartalul mbiram képp ku ko sopp rek tàbbi nga ci biiram kon ñu itam nañ ko ko nañ ko sant yàlla sant ko Serigne Touba damañ ko bàkkoo boobaa kat féex rek lañ jural te xam ne Serigne Touba njabootam dafa yaatu te moom wax ne bind na ne. li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi aju yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man boo demee ci rabbi bi may show rabbi bi may show yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jami alwara loolu fii la ko taarife woon ci daaru manaat gi ñu nekk tey kon moom yërmaandeem wa rahmati wasi'at kulla shay'in kon Sëriñ Tuubaa mbirum xatu dafa yaatu kon na ñépp yaatu yaatule euh, kon lii lii nag loolu lañ ci mën a jàng mooy gën a góor góorlu mu gën a yokk yaqin suñu digg Sëriñ Tuubaa te xam ne mbirum Sëriñ Tuubaa nag ni ma ko waxoon rek lépp xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne boo doon dàkk sam xel wala les scientifique di jox du bokk ak gis ndax ñoom ci seeni nattuwaay li waxoon mooy bu bu nit bu nit ñi buñ dajee wàllante bi dana bari kon bu ñu xëyoon ay téeméer nit mu leen di dal itam dañuy jàpp ne loolu mooy li war a am waaye nag lii xar baax la xar baax xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne ba baaxuñ ko gis moo tax am na kilifa bu baax bu daa wax ne mbirum Sëriñ lépp day xar baax xar baax nag boo ko bëggee xam danga nga koy jaarale fur bu baax kon gën a sant yàlla bu baax rek te wattandiku itam la Sëriñ Tuubaa mujjoon a wax ca ñu ndigalam yóbbu ji Cheikh mm-hmm. Mouhamadou Mountakha bokk na ci li gën a wax ne nañ ko fàttali nit ñi Serigne Touba dafa santaanoon ca waxtaan yow mujj wax ci njariñ na nañeen fexe fexe ba li dal diggante nasaraan yi ak yahud yi bu mu leen dal mooy waxaalatil yahudu laysati nasara ala shay'in waxaalati nasara laysati yahudu ala shay'in te loolu gis nañu ne mi ngi bëgg xew ci jamono mooy jullit yi di xeexante ci seen biir wala ñuy mel luy wujjante te ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm lañuy wax bu dee dëgg ci ñoom la leen juyal bariwut ndax li ëpp ci ponk yi ñoo ci bokk dëppoo bokkuñ nag ay yoon yu njaar ngir àgg ci yàlla loolu jërul xëccoo jërul waxante lu ñaaw jërul boddikonte ndax loolu ay yàqari la jur te Sëriñ Tuubaa wax na ko fu baree bari laaj yi ñu ko laaj yëpp itam tontu ya mooy julli yëpp ak njabootam bi daana ko wax Sëriñ Son bu laa ko déggee daa wax ne day xëy sa bu xóor nag muy wax ci tudd ci yenn ci nit yàlla yi di wax na ñëwee ci moom ba mu nekkee ci géej gi am kenn nitu yàlla ku mu tudd ne kooko de ku yéeme la nitu yàlla dëgg la ndax ba muy jébbulu ci man de ci ak ngeer la ma fekk ci géej gi daa daa dagg boppam joxe ak nitu yàlla daane moo tax nag bëgguma kenn ku bokk ci yoon muru ku leen di wax dara ndax ñi ci ëpp seen seenu njaboot ñëw nañu si ba jébbal ma ne kon sama njaboot lañ Sëriñ Tuubaa kon yaata xattalutoon bi yoon ko yaataloon kon nag nañ ci góor góorgóorlu bu baax te xam ne Serigne Saliou ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan walaw shaa rabbuka la na man fil ardi kulluhum jami'an Serigne Saliou nag am na luy fi ma sa xew ci juyoo yi daa am ci biir weer yi bañ dikkee ba wax ba noppi mooy leen li ngeen wax lépp de lu baax la na ñun de ci ngeen ñu fekkoon waaye nag damaa am tuuti lu ma leen di jàngal mooy xadis ba dafa wax ne ixtilaafu rax rahma wajtimaahuwaa sunna sama xeet bu ñu wutee rek yërmaande suñu borom la daan leen yërmaande googu yërmaande suñu borom jooju di wàcc ci ñoom nag mëtu leen a dawalee kon nañ xam ne ay juyoo bu amee ci yu mel noonu itam nañ ko jàppe noonu rek jàpp ne du yàq dara kenn ku ci ne la nga na nga gise jàpp ne moo gën a jub ci saw yoon rek na la ko ñëpp warmaala te sàmmule la ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi sëriñ Basiru ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare nuyu bokki taalib yi fi nekk yëpp di leen siyaare mën na noo wax rek ci turu Seex Mamadu Muntaxa donte sëñunu ko ndax sëriñ bi moo war a wax ci turu Seex Mamadu Muntaxa waaye bu nu sëriñ bi joxee ndigalul sànni ay kàddu itam te nag bàyyi ko gañ bàyyi ko ci moom war faa delluwaat kon sëriñ bi dana nu sant ci nu seere li fi gis dégg ko fi ci doxin bu rafet bii dafa mel ne lu ñu ci waroon wax rek Serigne Sam wax na ko lépp ay cant la ak i seere ndax liggéey bi rafet gi mu rafet ak mat gi mu mat ak ni mu doxee jaar yoon gi mu jaar yoon li Serigne Mountakha di wax rek yitte ju mat sëkk ak paste bu mat sëkk rek da ko laltaay mu yitte jooju nag ba mu jógee ci Seex Muhamadu Mountakha dafa ñëw ci suñu jëwriñ ji di Cheikh Mamadou Bachir yitteem ak taxawaayam mel na yitte jooju kon dañu ko wàll ñun ñëpp du ma sax da leen ko wàll kon damay damay dugg ci biir liggéey bi dañu ko wàll ñun ñëpp ke kenn ku nekk def ci sa yitteeg sa passeef bay mbir mi mën a mate nii mën a rafete nii ndax wax dëgg yàlla képp koo xam ne yaa ngi doon dund mbir mi yëg nga bu baax ne kenn ku nekk lañ ko doon def loo def na ko defeen war a fet nii ko sëriñ Saam tënkewaat jataay bi itam ku ko dégg rek mën nga caa xam la nga dund wala la nga fekkiwut mooy kenn ku nekk lam waroon def def na ko lam gën a rafete waaye wolof day wax ne tegale bu jubee ca ndab yi la jiitu la wala ndab yi jiitu kon bu Seex Muntaxa nekkee ci lam war a nekk ak nam ca war a nekkee ci yitteem ci pasteefam ci ñaanam ci lépp sëriñ Basiiru taxaw fa mu war a taxaw ci yittéem ci pastéefam ci ak yëgam ci ak ñorom ñor gu ko liggéey bi ñor tax na nun ñëpp kenn ku nekk xamal nga sa bopp ne ñor nga sëriñ Basiiru te boole gi ñu boole liggéey muy sunu jëwriñ moo tax mu ñoree ko noonu kon bëggam bu mu bëgg liggéey sëriñ Tuubaa bëgg liggéey bi jaar ci yoon bëgg nun ñëpp kenn ku nekk la ngay def nga di ko seeral yàlla di ko seeral Serigne Touba ba lépp luy tax mu baax lañ lay def loo nga ne ca lépp luy tax mu rafet nga ne ca loolu Serigne Bassirou di ko dund ak noonu ñun ñëpp nu di ko dundante ci suñu biir loolu rek mooy tax mbooloo bokk mbir def ko ba noppi ndam am ca kenn ku nekk la ngay def bu yàlla taxee Serigne Touba rek tax bëgg mu baax rek tax ñëpp nekkee foofa buñ defee rek résultat bu baax daal di am te loolu moo indi lii fi nekk tey. li ñu fi dégg tey loolu rek lañ mën a lañ ci mën a déggee kenn ku nekk def na lañ ko doon def loo nam ko war a defee nam gën a rafete loolu na bu amee résultat bu mat rek mooy am échec mënta am fenn bu fekkee dee luñ wër kenn ku nekk toog bi barab fii ma jaar dara du fi romb lu yàq dugg ci biir bu lu yàq amul fenn fu mu jaar rek lépp day baax te loolu rek moo am loolu rek moo am te ñu mën taxaa ma nga jiitu di ñaan ak pasteefam ak yitteem waaye sëriñ bii di sëriñ Basiiru taxaw ci taxawaay bi mu ci taxaw ci réunion yaag daje yaag kenn ku ne yaa ngi yëg ne sëriñ Basiiru mi ngi ci sa ginnaaw mi ngi lay soññ ci liggéey bi te loolu defe naa nun ñëpp kenn ku ne mën nga jaxame loolu tàmbalee ci man dañ ma doon def loo gi mu ci am man ni ma ci doon ak ni ma ci doon taxawoo gëm naa ne kenn ku nekk sa liggéey loolu nga ci nekk tàmbalee ko sëriñ Ousmane mii coordonnateur général maire ci dëkk bi professeur Lamine Gueye ci programme bu bees boobu alerte boobu xam nañ ne def nañ ci yitte yu mat rek noonu itam fañ nekkoon dañ faa nekkal sëriñ Bassirou nekk ba sëriñ Mountakha ne ci diggante boobu lu bari ñu defu xam waaye xam nañ ci daal yitte Pastef mboolem ñi fi toog kenn ku ne ci noonu nga doon doxi loolu képp a tax résultat bi mën a am sëriñ bi kon jërul may yàggal jotaay bi jërul ma di la sonal cant ak cant rek la mboolem nun ñi bokk liggéey bi bokk sëriñ bi bokk mbir mi kenn ku ne yëngi ci sa xol ak cant ndax kenn ku ne mu réussir nga bëggoon réussir na kon nag Pastef lanu sëñ Tuubaa fàggul te bi di ko sàmm ak yitte ñu defoon Pastef ak yitte ji ba lañ ci bëggoon a wax yàlla na yàgg rek lañ ci mën a teg yàlla leen fi leen fi defal leen jàmm ñi doon liggéey ñëpp sëriñ Tuubaa fay leen boppam sëriñ Tuubaa moom comme fayal boppam soxal sedd kon noonu ñëpp yàlla na sëriñ Tuubaa dugal ci biir yéen ma def fayal nu boppam ngeen yàgg taxaw liggéey bi liñ ci bëggoon sëriñ bi ci boppam sëriñ Tuubaa la mu bëggoon ci bisam bi na dëppoog ni ñu ko ko defale sëriñ Muntaxa it wóor na mën na mu ko bëggoon defee woon nañ ko noonu te loolu nag ci la suñu mbir mu jub nekk ci la suñu aji la ñu nekk maa ngi jégg bu baax mbaa kii sant baax